transport moo ko waroon moo ko ah, waroon joxe Mansour Faye Mansour Faye si bon. si cadre exécution Covid-19 donc ouais. là eh, Mansour Faye intervient comme ministre des transports te Mansour Faye bu mu nekkee ministre des transports ça fait ça mois quoi yàggul donc euh, peut que peut-être mais moom moo yoroon euh, euh, de en fait lui il avait la politique alimentaire les 60 milliards Euh, je pense que ministre des finances Abdou Ott moo yoroon l'exécution du pro du presse. du mais, programme mais est-ce que aussi Zator du presse bi ñu teel a joxe information xaalis bi jotagul a yegg demagul. non ma moi je pense que li li xew nii dama koy saluer parce que dafa wone uh-huh. euh, le souci de transparence du président de la de la république. de la république parce que bu ko neexoon gouverneur yi du ñu wax. Mm-hmm. su ko neexoon question boobu mu kii ko taf ko avancé mais non. la non tenue... un président de la république quand même. non mais transparence du caaxaan ah du c'est-à-dire c'est-à-dire li nga ci mën a. jàngee sa président du setal kenn ba taxal ba. non dëgg la li nga ci mën a jàngee mooy euh, jëwrinam yi. war nañu balaa ñu koy jox ay information ñu vérifier ko ba pare. Mhm. parce que loolu mooy yoon. président mënoo ko jox lu nga xam ne eh, ben écoute dañ koy dañ ko naan ci saal bi loolu taxawul. te mhm. moom tamit ñu delloo ko njukkal parce que loolu mu def nekk na lu am solo. Mhm. parce que sur place il a dit diw nee na ma. Ah. est-ce que noonu la demee. waaw kooku ne ko déedéet mu ne ko kaay wax. kaay wax demeewul nii mu ne waaw mu ne ko danaa ko gëstu dinañ ko lijjanti. parce que aussi ah, ah état transparence la président bu la dénkee dara. war nga ci xar sa tànk tubay def ko na mu ware man loolu laa jàpp parce que aussi euh, mënul nekk ministre de la jeunesse nekk finance nekk culture nekk partout mun ta nekk émission bi yaa koy animé fukki nit ak nangam a ngi ci ginnaaw mhm. ñii ñoo yore lamp yi ñii ñoo yore micro ñii mais yow boo naroon tey yi fii nga toog <laughs> nga bëgg yor micro yi yor lamp yi yor régie bi émission bi du dem mais est-ce que lay wan mooy mooy à quel point ak loo nekk président ni ñu la mënee manipuler mhm. xam nga président nu muy toog yéen a fàttali toogoon na fi ne man xaw ma dëkk bi am na café juróom ak meew juróom parce que des fois da ngay toll fu nga xamante ne conseillers yi dañ lay isolé parce que président xam la ngay ay notes ngay liggéeyee mhm. doo doo gis dara gis nga bi ñuy def fii afficité en 2014 président Nicéphore Faure Soglo dafa am dafa ne moom président Nicéphore Faure Soglo moo doon président Bénin mhm. dafa nekk président Bénin wàcc nekk maire Cotonou mu ne moom bi mu nekkee maire Cotonou loolu loolu yëg lan mooy fonction bi mu nekkee président yëgu ko woon parce que ay tableau la doon yor ak ay notes. ay notes bi mu nekkee maire nee na day génn buntu këram nit fëgg parante ne monsieur le maire lampe yi tàkkul. mbedd bi salte na. quand tu président tu n'es plus au contact du réel loolu moo tax président expérience baax si ak expertise maanaam jaar-jaar et pour man président Macky Sall dafa lu koy gaañ mooy jaar-jaaram. Mm-hmm. président Macky Sall 2002 lañ ko mu nekk 2012 mu nekk président il a 10 pour man c'est trop pour diriger un pays ah bah, aussi comme le Sénégal mais à euh, man man man bokkuma si ñi koy ñaane carrière am c'est une carrière fulgurante. Ouais. mais tey di gis nga fi ku fi def vingt ans trente ans de pratique administrative ba pare dem ba au bout gisatoo ñi nga xamante ne euh, Abdou Diouf état la mos dund te pourtant fin bi on l'avait totalement isolé dafa mel ni yorootu woon réew mi ñeneen ñoo ko yoroon. moo tax expérience homme d'état dafa am solo. Mhm. te dafa feeñ ci crise bi moo tax man d'accord ma ak ñoo abu bu ñu bi yëguñu ko woon. mais président bu amatul capacité ressentir opinion bi mais lan lay jëriñ. ça veut dire que moom lan la bëgg bëgg xam lan la xamoon mooy il avait réussi politiquement à neutraliser l'opposition et à avoir 80% de l'électorat comme il l'a dit. Uh-huh. le problème c'est que Macky Sall n'a fait que de la politique parce que Macky Sall ne connaît que de la politique. tey xoolal keroog kis bu mu amee le ministre de l'intérieur quand il man ministre de l'intérieur fekk naa ko projet uh-huh. bi cest n'est pas ministre des fonctions régaliennes qui veut et dafay poser question problématique préparation homme politique yi ñuy jox suñu ay responsabilités. Mm-hmm. léegi Sénégal sa premier poste ministre sa premier poste PCA wala sa premier poste DG. je pense que loolu moo tax mu laan sànq crise bi bu amee dafa war a nekk un nouveau départ nouveau départ fu muy commencé mooy reconfigurer notre administration. Mm-hmm. parce que dafa am jàngat yu am solo yu crise bi wane. gis nga àdduna bi euh, le, le printemps arabe 2008 la crise financière 2020 tu as le corona terrorisme crise finance crise sanitaire chaque 10 ans tu as une donc bu méttee ba métti la leçon qu'on apprend c'est que c'est l'État qui est là donc on a intérêt à avoir un État fort un État fort c'est des hommes forts et je pense que loolu bokk na ci enseignement yu ñu bi jàngal. Mhm. et ah, aussi ah, Bécaye euh, gis nga lii nii. Euh, c'est-à-dire li li li woon li ñu wane léegi nii ñu ko doon seetaan je pense que day poser beneen beneen débat mooy euh, mbirum coordination et quand je parle de coordination côté man poste premier ministre bi laay wax je pense que. dafa dafa feeñ. dafa commencé di feeñ en tout cas man am na ay couacs yu bari yu may gis depuis suppression bi ak léegi. dafa lié ak benn manque xawma de coordination laa ko mën tuddee mhm. wala boo xamante ni en tout cas du am diggante le chef de l'État ak son gouvernement euh, parce que lii bu ñu demee ba mu am même si que peut-être en tout cas tout souci de transparence bi Zator doon wax mun nañ ko ci jàngat mhm. mais aussi dañuy jàngat leneen li nga xam ne moo nekk ci ginnaaw muy lan moo tax ba mënuñu fexe ba njiitum réew mi di xam lii xew moom li muy joxe ak lu muy génnee ak mesures yu muy jël ak yu ni mel xamul ni gouvernement bi euh, defuñu ko jëfee nañ ko am déet ba tey ñuy toog publiquement di ko wax je plaide encore une fois pour ce que pour. lii mënoon na bañ a feeñ ci mënoon na ñàkk conseil présidentiel parce que aussi loolu day ñëwaat indiwaat euh, interrogation sur. mais donc euh, le président devait être informé xaalis bi. fan la tool ndax Jakarta maa mais bien sûr ba ñu ko waxee fii ba duñ ko waxee ba duñ ko waxee fii et je pense que foofu poste premier ministre peut-être premier ministre noon na euh, rôle am mënoon na euh, agir ay prérogative am mënoon na ko permettre ba genre mbir yi du am surtout euh, publiquement hmm, waaw sa ay békaay sa to ma yokk si benn affaire bu ndaw la ay békaay bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu mel ni comme si lépp tey la tàmbali si crise de commencé président Macky Sall bu doon président américain la deux mandats am jeex na bu doon naa def am na 10 ans bu leen fàtte ne président Macky Sall moo commencé mandat am par des conseils des ah. ay centaines de milliards lii xale yi doon wax démb yëpp naan ay nañ defar usine ak mango yi ndëb ak yëpp comme ça mais ba mu demee moom conseil des ministres xamoon na ko. waxoon na ko na ko la mu digg woon par région lan la ci def. moo tax ça pose la problématique de l'évaluation ça pose la problématique de l'administration gis nga problème mu réew mi préfet ya gouverneur bokk nañ ci. Hmm. c'est des gens qui n'ont pas été formés pour développer un territoire. Mhm. administration yi ñu xam. boo demee si régions yi mu ñu dëkk si régions yi man mi dëkk Ndar gouverneur préfet. préfet commissaire centrale procureur ñoom seen doon la mooy dëkk bi bu dara yëngu ils font que de l'administration. Mhm. développer avoir des idées proposer c'est pas leur problème ñoom tant que c'est calme ça et loolu bokk na ci réforme ñu war dugal ci réew mi. Euh, Zator bu nu xoolee président bi muy dem ci région yi di def ces conseils de ministres la vraiment amoon na ambition wu changer. mais mais xaj ba kay est-ce que est-ce que lan moo lan moo dynamique boobu lan moo ko kase. xaj ba kay dynamique boobu mosuñ ko kase. Mhm. président fépp fu mu demoon. lépp la mu fa digge woon xëy na bu deful lépp def na xaaj ba ba lu teg. Mhm. parce que li lay wan loolu mooy euh, satisfaction bi population yi am ci moom ba joxaat ko beneen mandat. Mhm. fan yi di ñëw dina inauguré ñetti hôpitaux hôpitaux yoo xam ne. ay zone la yoo xam ne mosuñu am hôpital nit ñi bu ñu fa daan feebar dañuy dee wala ñu ñoo ñëw Ndakaaru mm-hmm. non carrément c'est vrai dans toutes les régions Ndakaaru gi am na lu mu fi diggoon mi ngi koy jéem bu ñu fàttee toujours ne Sénégal pays sous-développé la nit ñaa ngi bëgg tali yu toujours des tali ay teen ay làmp ay hôpital ay ambulance école fu ñu jëlee loolu mm-hmm.